jërëjëf soxna Ndeye Arame Touré xibaar yi kon ci wàllu sport ànd ak kon rek euh, tiis nag Jules François Bocandé moo génn àdduna këram ca Ziguinchor nag fees del kon ci askan wu takku rek moo fa teew jipo boobu rek kon na naqar ngir nag masaw leen François Bocandé moo dugal nag loxoom ci yokkute gox bu Ziguinchor nag mu am kon rek lu bari ci wàllu rek kon football bi taxoon nag mu investir ca goxam ca diwaanu Casamance Cheikh Tidiane Cissé Kaba Cissé. François Bertrand Bocandé amul lenn lu nga xam ne dese na ko nation rawatina football bi lépp la ko jox waaye ñiy laajte tey ji ndax artiste bi dund nag li nga xam moom mooy aaram ginnaaw bi nga xamee ne turam màgg na lool. tontu ci laaj bi moom mën nañoo jàpp ne déedéet lay doon ci askan wi nga xam ne mooy yeewoo ci diwaanu bëj saalum réew mi. ginnaaw boîte de nuit bi nga xam ne nemmeeku nañu moo ko moom nekk ci quartier des affaires bu Ziguinchor mu tudd Ribis Night mu ngi ko jënd ci 2000 te it di fa employé lu ci fukki nit. villa 1356 nekk ci quartier Budodi porcerie bi nga xam ne mu ngi ko am ci gox goxaat bi nga xam mooy Sindone nekk ci comité rural bu ADN mooy li nga xam ne mën nañu jàpp ne alalu Jules François Bocandé la ci Ziguinchor Jules François Bocandé moomu nag doon gént tabax benn hôtel ci ginnaaw Ribis Night Club waaye gént googu tey ji mën nañu wax ne nax saay na ndax ki nga xam ne mooy footballeur bi génn na àdduna ci juróom fukk ak ñeenti at.